xaw ma lu ko tax a soxor ñoom am nañ seeni far yu leen di defar man sama cuun ngéelu ñu laa ma bàyyeeg moom ah na waaye tamit wax nañ dëgg cuun ngéelu nga xam ne yorul wérul ma të ci moom rek lank ni duma ko bàyyi 350 mille lan la ma mënal tamit nag ak ko tabaski bi ñoom ku ci nekk mi ngi naan yaayam dina jox yaayam xar dina jox yaayam diwlin man ma toog cuun ngéelu waaye bàyyi ko mu ñëw fi nee na mi ngi ñëw bu ñëwee fii la may fekk te <laughs> dootu ko defati walla yëpp na client boo xam ne dootu ko yàqale cun bàndiwul sa cun parewul hmm. cun lan lay waxee trois cinquante mille ma wax moom ñaañi ñu li mu comp entrée asalaamaaleykum maaleykum eh, eh, eh. Ah, waral lu ñaaw <laughs> ah yow cata gën a gaaw ah ku ma nar a sama jongoma ji wuy sama yow nga xam ni waa doomu wuy yow ma soo ma teeroo nii de. maa ngi dégg de waxal waaw tey lu la dal nii. dara dama nekkul am ah, kay moom xaw ma nu mu demee noonu xaw ma sa numéro foo ko wàcc waaye moom nekk nekkul ak yow. ah wax ma lan la rek. non du dara du yow ma soo ma teeroo nii de. maa ngi dégg de waxal ni nga ma teeroo tey metti na ma de. tuut ñëwal. man xam nga lu ma fi indi woon. Hmm. leen dong moo fi indi woon te information bi ma la ko joxee pare damay dem. léegi dama bëggoon lijjantil la tissu bëggoon xam ban tissu nga bëgg ak ban ñaata mètre nga bëgg loolu moo fi indi woon ak euh, am na benn pël bu ma kiifee xar mu ngande neen daf ma koy jox en tanda yaa ngi dégg ma indil la ko ndax ma ne yow tabaski bii nii xam naa ne seen kër ak ñëpp ci yow lañu yaakaar te yow ci man cuun géwal gi nga yaakaar moo tax ma bëggoon tey tey jii nag tey dama bëgg ñu signer lépp nga xam ne ndax tabaski bi rek si ñëw na ma pare yegg si na faaw ñu waxtaan si ndax boo xoolee gannaaw suba laay jëli tontine bi waaye balaa tontine bi di ñëw dama bëggoon nga xam ne léegi bu ñëwee am naa sama nit koo xamante ni ku baax la te neen boobu boobu moo fa demee lu ma soxlaa rek ci tiseeg yenn xeet yooyu noonu yu jëm ci tabaski rek dama koy am waaw moo tax ma tey jii ma ni naa fi ñëw entendant commencé dugal affaire yeeg yooyu noonu nga mën a yóbbu say ñaw ak yooyu ndax xam nga yow ñaw VIP ngay ñaw waaw gis na ñaw ñëw VIP ngay ñëw léegi sama passion bi tamit bu fekkee fayeeku naa ko maa ngi koy kii ndax dajale woon naa ko bu ma ko fayekoo jox la ci nga fay si ñëw te waaw waxaguma waxu trois cent cinquante mille tontine gi de hmm. tontine bi jotaguma ci déedéet le la lan tey wax ak man ba tey gis say wax. mukk. cuur xam nga dama nekk ak samay naw la ci diggu koñ bi ànd ak sama ñaari xarit ku ci nekk nag def nga sa programme tëre nga sa programme ba man ma topp sa ay cuun bis boo ma hmm. si xam nga man xamee woo ma caaxaan te man xajuma ci daraay caaxaan man duma la nax incha allah ci kàttanu yàlla tontin bi ma si jotee sa loxo lay tegu yaa ngi dégg duma moroomu tontin cuun loolu nga war a xam 350 mille mënu si jënd xar ba pare jënd ci lu may sanse 350 yoruma léegi naa la indil tisi sama passion bi bu ma ko fayee koo jox la nga fay si ñaw indi trois cent cinquante mille yi teg sa loxo yow lan nga bëgg. Cuul lool nga wax de. waaw loolu laay def. waa ba wax ja teel mujj ga rafet. <laughs> bu ma benn coow sama diggante ak yow nag ma kenn di ma xamal. kenn du ko xam kenn du la xamal. waaw baax na te incha allah bëgg gi ma bëgg. bëgg gi ma bëgg ba may sagal ba topp ma nii di nga tax ma mira sama bopp ndax bu dee nday coxoñ moom moom lépp mën na ko des eh, eh, eh, man sama yoon nekk bu ko fi tudd de bu ko fi tudd sama kanam c'est ma ko ak moom day waaw du ma ko tuddaat sama kanam waaw du ko tudd maa ngi jéggalu baal nga ma waaw baal ma dootuma ko tuddati moom turam yi sax a njëkk a ñëw nday coxoñ cuun yow lay wax kañ lay noppi dootuma ko waxati baal ma maa ngi jéggalu tur yi sax su ma koy wax damay ñaq waxuma tuur bi dama ne su ma koy wax damay ñaq. sama yoon nekk. waaw man sama bopp léegi nag damaa bëgg ñu waxtaan ci affaire boobu noonu léegi damaa bëgg ñu waxtaan maa wàcc nga léegi giif nga. waaw yow ah? mais daanoo ma def nii de. mbaxane bi simmee goo ko de te daan nga ko simmi de. non tey aw ma kii dama ci ah. hmm. léegi ban façon tissu nga bëgg ban. këloo après la ko wax demal rek yow. dama wax man couleur nga bëgg. dinaa la ko wax. yow maa ngi déggante ak téléphone. waaw ñu ngi déggante dinaa la ko wax maa ngi dem dégg nga ah tey de moom ah. tey moom xam naa ni tey moom dara. doon mun mu nekkuma en bon humeur mun nga dem yow tamit kañ ngay dem. waaw waaw biisu. demal dinaa la ko envoyé. ah biisu bul tub walla SMS. demal wala WhatsApp. kañ ngay dem suñu waa kër dañuy nalaw. waaw dama lay laaj. kañ ngay dem. ah, ah gulet tey ma ji bu ñuy envoyé. Ah. munoon nga ko teg fii rek. tey nga koo teg fii rek dama la cun dama lay mbaj de. déet waay waaw soxna ma torba benn sabadooram bi mënuma ci moom xool bu bari suñu kër gi yëpp yuut na ko yuut na ko ba mu fees. kii lu ñu ko wax rek moom la moom tamit defak mbaxana mi de mel ne yenn katu saako soof na ma torop man sama appétit sax muy coupé man waaye ñu tamit ñu ma waxal rek man la topp tuun ngéwél mi nga xam ne yoru wéeru ay naroom doyut não coparam